particulièrement le président de la République, euh, son Excellence Macky Sall, pour déposer un projet de loi niñ ko bëggee woon ci Assemblée nationale pour que mu mën a criminaliser le viol et la pédophilie mën a euh, dimbali askan wi ñu mën a euh, am dal ci métital ak xoñoñal jigéen ñi. kon euh, atelier bi doon loo xamante ni lu rafet la ci liggéey boobu nga xam ne ñoo ko entamé société civile bi li am solo rek moo di déjà am nañu projet de loi loolu àkki la li ci des nag moo di ñu waxtaane ko comme tënk nañu euh, projet de loi boobu société civile bi yëpp toog waxtaan ci xool lan la ëmb bu ñu ko waxtaanee ñu def proposition bu fekkente ni ànd na ak suñu xalaat su àndul ak suñu xalaat ñu def ay proposition yoo xamante ni dina dina ko changer ba mu ànd ak xalaatu jigéen ñi ak xalaatu askan wi yépp ngir boo loi boobu egsee mu doon loi boo xam ni tawféex lay doon loolu nag maa ngi ci félicier jigéen ak One Campaign waaye di leen woo ci euh, àndandoo parce que mbooloo mooy doole Euh, jigéen ñi ak organisation yi xeex nañu tëral nañu kuréel yu baree baree bari ànd nañu ci xeex boobu te suñu doole ci xeex bi moo di ñun ñëpp ñu dajaloo ki ñëw démb ak ki ñëw tey ñun ñëpp ñu àndandoo pour que suñu doole mën a mën a bari ñu mën a taxaw xeex euh, ba xeex bi mën a am njëriñ li ci euh, ñaareel bi li si am solo moo di CISC boobu nga xamante ne teg nañ ko mu ëmb kuréel yi yëpp maa ngi ciy woo jigéen ak One Campaign pour que ñoom itam ñu yegg si bokk ci euh, talaata lañu ñu convoqué ci réseau Siggil Jigéen pour que ñu toog waxtaane ko ñun jigéenu Sénégal yëpp ak waa AGS association des femmes juristes ndax ñoom ñooy spécialiste droit ñoom ñoo xam ñooy mooy seen métier bu ko defee ñu toog càmbar affaire bi ensemble luñ ci jëlee rek. daal di ko mën a teg taabal ji waxtaan ak ñi nga xamante ne moo ñooy suñuy kilifa ak assemblée nationale bi nga xamante ne ñoo yor baatu askan wi balaa projet bi ñu dem di ko wotee ñu yëgoo ci parce que wolof nee na watkati euh, yanukatu xëddeen dañuy wax seen soxla doog a jóg ci loolu rek laa rafetlu jotaay bi di ñaan nag euh, jigéen ak One Campaign les résolution bi ngeen fi jëlee lu ngeen fi taataan ci waxtaan wi ngeen indi ko ci waxtaanu talaata bi nga xamante ni mooy gën a yaatu ñu bokk ko ak ñëpp mu gën a xóotal waxtaan wi gën ko leeral bu ko defee ñun ñëpp ñu àndandoo mën a défendre projet de loi bi. beneen poñ bi moo di bu ñu amee loi bi ba pare ñun société civile bi war nañu engagé wu nag jàppale état jàppale gouvernement pour que askan wi yëpp mën a xam projet boobu lan la ëmb. ndax euh, xëy na euh, kilifa yi am nañu yéene teg loi wante amuñu doole yi expliquer ko askan wi dem ci dëkk yi dem ci euh, néeg yi dem ci àll bi waxtaan ba askan wi xam loi boobu mooy lan. loolu nag suñu engagement la war a doon te suñu tâche la war a doon moo war a doon suñu contribution. pour que askan wi mën a xam projet de loi loi boobu lan la ëmb pour que ñu mën a aar njaboot gi aar doom yu góor yi aar doom yu jigéen yi parce que doom yu góor yi itam suñu njaboot lañu suñu sañoon kenn du dem kaso kenn du am lu ko metti donc waxtaan woow pour tasaare ko pour ñëpp xam ni loi am na ñu moytu yenn yi dafa doon warugar woo xamante ni danoo war ñun société civile encore une fois maa ngi rafetlu atelier bi mu doon beneen atelier ci campagne bi et li ci am solo rek mooy di ñun ñëpp ñu àndandoo pour que ñu mën cee am ndam jërë ngeen jëf